sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci aw turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi al cheikh Mouhamadin al Muntaqa al xalifatul aam di jël nuyoo boobu di ko tegaat ci ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu jiite mboolem ko askanoo ci sëriñ Masamba Kanni so di sëriñ Alxaaji Bousso Cumaleen moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaare waat bu baax a baax euh, di nuyu bu baax kilifa jotaay bi nga xam ne mooy mooy suñu kilifa fii di sëriñ Cheikhouna Bousso Maram xam ne moo fi teewal sëriñ Alxaaji Bousso Cumaleen moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko joxaat wàccuwaayam ak mboolem njabootu sëriñ Masamba Kanni gépp di jëlaat nuyoo boobu ba léegi di ko teg ci loxo njaboot gi nga xam ne moom lañ fekk si di njaboot ak maam Sakonaté Diagne ak mboolem koo xamee ne euh, yaa ngi sant Diagne te bokk ci famille yi. ginnaaw boobu nag euh, comme niñ ko baaxoo amalee ci at mu jot ngir du waajal màggal googu di màggalu Serigne Massamba Kanni te njabootu Serigne Massamba Kanni gi baaxoo koo taxawee foofee ca Touba Darou Khadim euh, table ronde yi nga xamee ne baaxoo nañ ko amal tey jii it ñu indi ko fii ci sura ci njabootu maam Sakonaté Diagne. xam ngeen ne heure bu waxtu wi jotee danañ amal ay table ronde yoo xam ne dañ koy waajal ngir fàttaliku bis boobu te jii ñu ñëw lenn ci ñooñu nga xam ne ñoo àndaloon ak ma Serigne Massamba Kanni mag ñooñu ngir fekk see leen fii. Euh, bu ko defee comme ni ko baaxoo amalee rek bu mosaan amal jotaay yooyu danañ fi amal ay waxtaan yu am am solo ay tomb yoo xam ne des koy mën a fàttale ndax fàttali mënta ñàkk ci ab jullit ndax daf koy jariñ wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala waxee euh, bu ko defee nag programme bi nga xamee ne moo war a daw fi incha allah rabbi taala nii la war a tëddee bu ko defee ñu bàyyi xel bu baax a baax ki nga xamee ne moo ne war a defal waxtaan wi incha allah rabbi taala mooy Serigne Mbacke Diop Xodar ci tam am am solo boo xam ne ñëpp wares na ko bàyyi xel muy dawru sababul muridin fi xidmati trois ak tariqatil ya boo ko defee moom dana ñëw waxtaanal ñu rôle bi nga xamee ne euh, ndaw yi murid yi moom la ñu war a joué ci yoon bii di yoon murid boo ko defee bala moo commencé itam Serigne Bassirou Mbacke istixaama dana jël euh, dalal ko mën a euh, wax yu gàtt rek mën ko ubbee boo ko defee Serigne Mbacke door ñëw ci jotaay boobu. Euh, gannaaw bu Serigne Mbacke Diop Xodar jàllee ci waxtaan woowu Serigne Makhtar Boussa Abdourahman moom it dana ñëw ànd ak ñun ci ay commentaire yu gàtt rek boo ko defee moom it ñu mën ko lay taayeele waxtaan wi nga xamee ne Serigne Mbacke doon na ko def gannaaw bu Serigne Makhtar jàllee itam incha allah rabbi taala am na fi ak euh, xasiida wolof goo xam ne euh, waajal nañu ko ngir euh, sargalee ko famille bi nga xamee ne moom lañ fekk si di famille Njaañeen ki ñu ko war a defal di Serigne Cheikh Naa so moom Serigne Abdourahmane Mbar gannaaw bu xasiida googu daal di incha allah rabbi taala njaboot gi nga xamee ne moom la ñu fekk si itam ñoom danañu am ku ñëw wax ci seen kàddu. gannaaw bu kàddu googu jàllee kàddu gu mujj gi nga xamee ne moo jógee ci sëriñ alxaaji bu sutu ma leen moom it euh, dana ñëw euh, daal di jàll bu ko defee ñu mën a yeewu jotaay ba beneen yoon xam naa kon bu ko defee yi ñu euh, ànd ak ñun daal di xerawlu ñu fàttali nit ñi xel bàyyi loolu xel daan ne ñoo ngi koy ànd ak site internet yi xamee ne fës nañ bu baax ci dëkk bi lu ci mel ne Rafah TV moom it moo ngi koy def direct képp koo xam ne bëgg na koo seetaan yaa ngi ci batum bitim réew moom it mi ngi koy jàllale ngir ñëpp maanaam man cee jot waaye itam site bii di Production moom it moo ngi jàllale jotaay bi ñu bàyyi xel baax euh, waaye itam euh, li nga xamee ne mooy Mbacke Kadior TV di site bu am solo moom it moo ngi ñoo ngi ànd ak ñun ak euh, jotaay bi kon bu ko defee dañuy jox waaw ba léegi itam mi ngi jàll ci jant bi FM ñu ànd ci Serigne Gora Ndiaye ndaanaan bu ko defee kon dañuy jox sëñ Bassirou Mbacke Istikhama mu daal di ubbi rek bu ko defee Serigne Mbacke mën a ñëw ñun ci waxtaan bismillah aoudu billahi min alsheytan arrajim alhamdulillahi alkarim ala nicmati cheikh alxadim xamdan kathiran la yarim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin xayril anim wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi nujum wa man tabiahum bi ixsani ila yawmi maalum fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixa wala yushrik bi cibaadati rabbihi axada allahu rabbi wala ushriku bihi cheya ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عونك يا معين وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأسأل الله العظيم الأكرم فوزا بما رمت وما لم أرم وكونها باب الغسل للخديم وباب كل طلب من القديم صرفت همتي لهمة الرجال وهمة الرجال وجه ذي الجلال mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu bu baax tey ziar bu baax kilifa ak yoon wi jaaree ko ci suñ buntu fii ci kër gi di sëriñ alxaaji Fadil Bousso di ko ziar bu baax a baax di jaar ci moom di nuyu njaboot gi yëpp ziar bu baax njabootu maam saa konaate gi ñu fekk si fii jaaree ko ci suñ jaata jaañ ak suñ Pape Jaañ ak mboolem ñi ci bokk ñëpp ak mboolem waa koñ bi yëpp santal yàlla bu baax suñ borom subhanahu wa taala ba ñu mayee tawféex ñu bokkaat ci jotaay yii bokkee ci foo xam ne ci tawféex yi sëriñ bi la bokk ci pàgguteef bi sëriñ bi la bokk muy sëriñ Masamba Kanni moom alhamdulilahi rabbil alamin manaam li ñuy bëgg waxtaane lépp du génn himmatu rijaal googu mu orienté woon boppam jëm je waaye sànq ba may xool ba ne alhamdulilahi rabbil alamin ne mag ñi ñu am tawféexu ñaan lañ te sëriñ bi wàll na leen naka la ñuy ñaanee seen si seen boroom baloo gis ci ñoom boo ko gëstoo ci seen mbind fekk ca lu lu nu mel tey Fathul Manaan am na tawféexu di liggéey sëñ Massamba Kanni di ci ndem na bi di ko jéem a sonnal di ko jéem a xamle waaye ku dellu ci mbindam mu mën a bokk ci ay ci ci ay pàkkutéefam ndax waxoon na ne bi kaw nikal karimi hëbli yaa karim xayra jamaatin mu bil xadim yow yàlla sa baax gi nga baax nag ma ci may mbooloo moo xam ne ay tànnéef lañu doon waaye nag di taxaw ci sëriñ bi tey nag bu ñu ñëwaatee tey tànn ab tem di ci waxtaanee loo xam dara dara génn ci sëriñ bi alhamdulilahi rabbil alamin ci tawféex yi rek bokk manees te manees ci ñaan yooyu mbokk yi tem bi waa Fathul Manaan tànn di tem boo xam ne tem bu dëppook jamono la ndax dañuy wax ne xam-xam daan na dund waxtu ne waaye dama naan jamono ji moom lu xam-xam amul xam ñàkk sens waaye jamono ji ci xilaafa cheikh xilaafa cheikh Mouhamadou xam-xam amul xam-xamoo ñàkk sens su boobaa waaye kenn bañu lu ko dara ci yoon wi kenn gàttuñ lu ko dara ci yoon wi am na ay tawfeex yu rëy yoo xam ne tey ñëpp ñee nañ ñooñ xam-xam ngir taxawaay bi ci Cheikh Mountakha am ak dina sagal guddi gi ba cëkk mbokk yi thème bi moom rek daa firi boppam dawru shabaabi fi xidmati turaasi tariqatil muridiya maanaam róolu ndaw ñi ci liggéeyal mboorum sëriñ bi ma ne dawru waaw kenn ku nekk war nga am loo defal sëriñ bi waaye nag loo ko man di defal am na lu lum jiitaloon walis leneen te xawoon nañ ne mbindam mi ak liggéey bi mu doon liggéey ci diggante ak borooma ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jiitu doon ci kaw lépp loolu moom bi xidmati lkitaabi walxadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi kon ku nekk ci tool woowu di ca bay yaa ngi ci tool wu naat woo xam ne ku ca bay ma nga ca am tawféex kon bu ñu ko tànnee lu am solo la ñu teg ci ak shabaab ma ne waaw shabaab yi kenn kenn kenn génn ci ndax lu waaye kallafe kallafe dima ndaw ci sëriñ bi moom suñu masamba mii boo génn ay ay atam tamit xoolee ci ci ci ci ma biir ci biir yooyu lu bëri ci li muy àndal sëñ bi ci ci ma ak ci ci ci ak waxambaane nekk kon tem boo xam ne suñ mag ñi dañ dañ ko walaay taay ba ba tey jii nag ndaw ñi war koo nafar ñu war ci ànd koo xam ne nag moo naa tem bii moom mën nañu wax dawlu shabaab yi fii xidmati turasil muridiyya suñ mbàkk jóob na muusa jan te kenn du ma weddi maanaam suñ kii def waxtaan wi bokk na ci ñi gën a yey ñu ma def waxtaan wi ndax danaan boo naan naam nekk fa ne fa mu la joxoon ngay waxtaan ci thème bi te yow liggéey liggéeyloo dara turaas bi li ngay wax du saf kenn waaye ku mel ni kii def thème bi suñ mbàkke bu ko de bu ko defee lu mu ci wax nit da nga ko mën a dégg ndax ndax ndax da nga koy dund bari waa na tey kuy gëstu dara ci sa maam sax da nga delluwaat ci mbindam doog cee dellu doog doog doog doog cee xam dara kon yàlla na ko yàlla dëgëral alhamdulilah wala mi namaan demee ne ci ci tawfeex si suñu Masamba Kandi maanaam jotaay bii nii laataa laataa juróom-benn at mo moom mii woon naa ko ñu ñu ñu may waxtaan ci lu mel nii naan naka la ñuy def rek mu daw wana wala maanaam def mu daw wana boo xam ne day boole turaas bi te alhamdulilah wala mi bu ñu yàlla boolewaatee fii ci pénc bi suñu Masamba Kandi ci kër suñ maam saa Konaté dañ ci santaat bu baax a baax te di am ci moom yaakaar ñaan yàlla suñu borom dëgëral ko xel ko tawfeex te may ñu nopp yuy dégg bokk na ci ñi nga xam ne yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana sëñ Mbàkke ahlan wa sahlan al microphone bayna yadayk wal jumhur yastami'una ilayk alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala ali baytihi al kiram at tayyibin at tahirin zawi ridwani wat tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum di jiital ci nuyoo yi al xalifatul am lil muridin mawlaana cheikh muhammadil muntaqa di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala sàmm ko aar ko ba naan yi mu naa al islaam ak yoonu murid méegale yëpp ñaan ko moom di ziyaare bu baax it sëriñ ma Masamba Kandi Bousso muy sëriñ Alxaaji Bousso ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñim bokkal kilifa gu tedd gi nga xam ne royukaay la ci biir yoonu murit di sant bu baax sëriñ Modou mi ñu fegool te mu doon tijji kàddu yi sànq ak sëriñ Basiru mbakke istiqaama ci kàddu yu am solo yi nga xam ne tijjee na ko ngir njëkkante ak waxtu wi thème bi nga xam ne moom lañ tànn ngir war ko waxtaane tem la boo xam ne ñëw na ci jamonoom muy dawru sababil muridin fi xidmati turaasi tariqatil muridiya taxawaay bi nga xam ne moom la ndawi murid yi war a am ci liggéeyal patrimoine bu yoonu murid wala ci liggéeyal héritage bu yoonu murit jàpp naa ne mbokk yi nga xam ne ñooy organiser jataay yu am solo yii ngir waajale ko màggalu suñu maam ju baax jooju seetlu nañ ne ndaw ñi ci jamono ji ñu toll ñi ngi dëgmal jëm ci liggéeyal turaaf bi nga xam ne moom lañu fi sëriñ bi bàyyil ak mag ñi àndoon ak moom ndaw ñooñu nag ci anam yu wuute lool ñi ngi ciy liggéey waaye ndaw ñooñu mën nañoo wax ne yoonu murit bu dee jëm kanam mën naa jaare ci ñoom ci domaine yu bëree bari ci wàllu xam-xam ci wàll diine ci wàll économie ci wàll social ak ci domaine yeneen yu bëree bari bëri bala ñoo dugg ci tem bi dana jaadu def ab laltaay bu gàtt lool ci baat yi nga xam ne moo composé thème bi ndax thème bi daa mel ne dafa am ay baat yu bari yu ci ne tudd nañ ci ashabab muy waxambaane yi ñooy ñan tudd nañ ci tamit atturaaf muy patrimoine wala héritage mooy lan tudd nañ ci tamit at tariqa al muridiya looloot mooy lan dëgg-dëgg ci yooyu la jaar ngir mën a ñëw nag dëgg-dëgg ci wax ban taxawaay la ndaw ñi war a am ci patrimoine boobu nga xam ne yoonu murit moo ko moom baatu asabab muy waxambaane li muy tegtale rek ñaari mbir la ci arab dana tegtale ak màgg waaye dana tegtale doole ju nit amee joo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala moo ko ko defal te loolu mëneef na ko déggee ci alquranul karim bi suñu borom subhanahu wa taala di wax ci nit xatta ida balaga asuddahu wa balaga arbaina sana nit bi nga xamee ne dem na ba àgg ci ak màgg xelam mat waaye ak déggam mat dëggi-dëggi mat jamono jooju mi ngi jot luy tolloog ñeent fukki at kon ndaw étape la bu am solo boo xam ne ci dunduk nit nit ki di ci romb mu tàmbalee ci bi nit ki amee fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki at am na sax ñu wax ne mën na koo jéggi ba àgg ci juróom fukki at waaye li gën a lëng ci ñi koy xamle ñu bëree bari ci ñeent fukki at yooyu lañ jàpp ne ci la état bu ndaw yem waaye nag bu ñu ne ashababul muridun mooy ndaw ñi nga xam ne dañoo aju ci yoonu murit man dañoo tënku ci yoonu murit nga xam ne ñoom seeni sëriñ ci yoon wi lañ bokk ñu juddoo ci yoon wi xam yoon wi jàng yoon wi ñooñu ñooy ndaw ñi nga xam ne ñooy ndawi yoonu murit su dee nag tariqa al muridiya muy yoonu murit ci boppam comme niñ ko xamee rek dañuy wax ne yoon la woo xam ne mi ngi tënku ci ngirum tasawuf waaye sëriñ bi tabax ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa muy yoon wu beer woo xam ne nekkul ab bànqaas ci tariqa qaadiriya comme ni ko yenn mbokk yi di bindee ci seeni téere muy njuumte mag lool waaye yoon la wu beru ndax am na werdu boppam doon it yoon wu yaatu lool woo xam ne xatal tënku ci gëm yàlla ak lislaam ak al doon yoon woo xam ne bokk na ci ay principe am muy xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak teggin yu ñu gërëm su ko defee nag baatub at turaaf muy patrimoine mooy lan at turaaf li muy ci langue bokk na ci loo xam ne nit da ko bàyyil ñi ko war a donn ginnaawam mën naa nekk alal ju ñuy donn ginnaawam mën naa nekk tamit ak tedd nga joo xam ne da leen koo bàyyil moo tax sax am ci yenn ci boroom xam-xam yi yoo xam ne dañoo gis ne buñ ne atturaaf mook almiraaf dañuy bokk maanaa maanaam dañuy duggante léeg-léeg waaye yenn ci lugawi yu na yi muy linguiste yi dañoo gis ne buñ ne almiraaf dañ koo gën a jëmale ci alal waaye buñ ne al irs mën naa jëm ci al xasab kon ñaar la yoo xam ne mën naa duggante waaye mën nañoo wute léeg-léeg baatu at turaas nag rot na ci alxuraan benn yoon muy fi yàlla di waxee wa taakuluuna turaasa aklan lamma foofu borom xam ne dañ dañ koo firee al miraas dangeen di lekk miraas bi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa daf ko jagleel jigéen ñi war a donn ak ndaw ñi war a donn waaye léeg-léeg murit yi dañuy dajaloo wax ba jeexal ay wolof la ñuy wax te ña ñuy waxal dégguñu li ñuy wax kon duñ ko jariñoo te woote sëriñ bi daa war a jàll ñépp jariñu ci ndax xéewal la làmboo yaa ahla barri yaa ahla baxri xujuli barri baxri saxaay la waxoon ci tëjtali nag euh, trace boobu nag ñu xam ne ñenn moomuñu ko rek trace bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi muy ndonalu riis lii ak mag ñi àndoon ak moom ñenn moomuñu ko doonut aw sant tamit wu ñuy askanale ci waa sant sàngam doonut lu ñuy askanale ci ab sëñ bi da ko fee bàyyi mag ñi dañ ko fee bàyyi képp koo xam ne jumtukaay yi war a daje ci yow ci xam-xam daje na ci yow kenn gënu la caa yaay ci liggéeyal ndax sëriñ bi daa waxoon wali yahab bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga tànnal ma mbooloo moo xam ne dañ may liggéeyal ci ndona lii nga xam ne mooy ndonal xam-xam li ma fi bàyyi ak yeneen ndono yiñ tudd ci biir waxtaan wi waaye xoolal sëriñ bi jamaatan xaadima jamaa amut alif ak laam nàkkira kon ñépp a ci bokk du mag du gone du sëriñ du ndonga ñépp ci bokk ku ci génnee sa bopp rek yaa ci génne sa bopp kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee nag euh, ñu xam ne daal turas baa ngoog ndono laa ngoog ndono lii nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi ndono lii nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi ndonal xam-xam da cee gën a fës waaye du xam-xam rek xëy na ci côté xam-xam lañ gën a xuus waaye am na yeneen yoo xam ne tuddaale nañ ko ci biir waaye nag li mooy xam-xam daa war a jiitu su jiitoo rek yeneen yi ci des ngir mu am day jàpp ni day yomb lool ñu gën koo sàmbal ndono li ci ñun murit yi defar suñ bopp ba fuñ dem buñ ne ci yoonu murit lañ bokk ñu bàyyi ñu xel lool bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy jaar ci ñun di yàpp sëriñ loolu kenn ku ne war na caa liggéey liggéey bu rëy lool ñu ngi mbokk yi bu baax a baax di jéggulu ci kàddu yi lu ci leer ñu xam ne ci suñ borooma lu ci dëng rek ñu xam ne ci euh, nit ku doon jéem a nab nabi rek la di santaat kilifa yi bu baax a baax wax dëgg yàlla gis nañ fi ay suñuy sëriñ yoo xam ne buñ leen joxoon kàddu gi xëy na danañ wax lu gën a leer wala lu gën a jot wala lu gën a yaat lii nga xam ne moom lañ fi andi di sant waa kër sëriñ ma Massamba Kanni ci boole gi ñu boole ci programme yu am solo yi ndax lu baax moom ku la ci boole yi wow yal nañu ko suñ boroom boole ñun ñëpp ak ñi fi teew ak ñiy dégg te teewuñu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Masamba moom kan mi njaboot gi ñoo àndandoo di xàccandoo dóorandoo bisam bi woote ji ko woo nañ fi mag woo ndaw woonañ nañ fi paat ak ci te jegi ak jànq yi seen bis la buñ wuute ko ku ñëw fi doo rëcc ko loo soxla am na fa it bernde turu ba yaram yii yëpp am yii yëpp am nañu ko. ku bëgg aawo baa ñaareel wala ñetti it ñeenteel nde dem neex na la bii bis de bul tardé ko buñ fàtte tudde ñoom siñ mataar farba ngom yaa xujjabee ak ñeneen ñoo xam ne duñ tudd aouzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim xam naa ak xasiida la buñ defoon ci wolof jagleel ko njabootu Mame Sakonaté Diagne incha taala ñu defoon ko ci baxru rajaz incha allah ma tàmbalee ko fi yu rëy ma jug te kañ fi ay jàmbaar yu rëy maam saako naate ak njabootam yooya wëy ma jug fi ay jàmbaar yu rëy maam saako ak njabootam yooya ak ñi fi ne ngir ñoo ko mat ay taalibe ci joxe ci ab liggéey mbaa xat tabe maam Sakho Naate doon na lool ku ñu ràññale ci bëgg siñ ma sàmm kanni ceykile joxoon ko léppam jébbaloon ko ab xolam yaakaar ko def ko kim gënoon fonk tam mm. tabeem nga raw na niir wu taw bam wala ngaan te na it ay géeji géej rawi sayaam du tàyyi mukk ci liggéey lu dul ne moom góor góorlu ak ñafe liggéey moo diw sa góom du xeeb ku ñàkk mukk baa muy réyali ku am ki waaye ñépp ñaar lay yemale fonkoon na lool julli joroom du leen di faat te lii ma wax lépp ci moom mën naa ko waat doomam ji it maam yaata jaañ doonoon ku baax toppoon ci toppoon ci tànki waajuram dem ci ba jeex mhm. ci jaamu yàlla fonk ab sëriñam mhm. jébbal ko jëm mu jàkk xolam dal di ko gëm mhm. lum daa joxoñ mu dagg tey di sellal jëfam yi ak dina bu daan na tàllal loxoom ci bépp mbir mu sëñ bi bëgg te daa dagaan ci moom gërëm lu màgg joxoon sëriñ bi wor ma jox ko gëdd nekkoon ku jub kocc mësul di jàdd bëggoon sëriñ ma sàmm kanni daal bëggoon sëriñ ma sàmm kanni daal ca seeyi mm-hmm. te musta wuute fu mu woote ab liggéey mm-hmm. ak kooku yi ñuy ak kooku ñuy wax maam Amar Diagne doomam mm-hmm. doonoon ku jàmbaar di ko waye doon ku ñu xam ci dëggu ak ci farlu ak ca way ak mbaax ga ak laa biir ga ak ca tab ga seen mbaax ga tax ñu meññi ak njaboot bu baax ci topp see di maam ci bépp mbir mu baax ki noonu it maam jàmbe doomi maam saa doonoon ko way ca tànki baay ja maam saa bëggul sëriñ ma sàmba lool yaakaar ko du muy ndigal te lu mu am jël jox ko saxoo liggéey ba am ngërëm lu màgg lu kenn amul muy mbir mu rëy diw tagg mhm. yàlla ko tànn mhm. def ko muy ab werekaan mhm. di royuwaay bokk ko roy doo def safaan saa yu ñu wootee ab liggéey ñooy jiitu kuy joxe tam ca ñoom itam ngay niitu xaaral ma tëj saa way wi man ta gàttal seeni ngëneel ku bëgg ko lim du jeexal asalaamaaleykum wasalaatu wasalaam ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa molaana mohammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di jëlal suñu kàddu ak nuyoo di ko jëmale ci suñu waajur sëriñ Fallou buso moom sëriñ Mbacke Kani muy kilifa suñu yaari kër yi waaye di ko jaarale itam ci sama wax jooju ci suñu kilifa sëriñ Fallou Bousso moom sëñ Cumbuleen mi nekk ci bopp kër sëriñ Massamba Kani di siyaare bu baax a baax mbokk yi ak waa kër euh, sa jaan yépp Euh, waxtaan wi nag sëriñ Mbàkke am na solo trop trop trop trop euh, waxtaan wu yaatu la woo xam ne jàpp naa ne damay wax ne ëpp naa bàyyi sax mu dem waaye dëgg-dëgg ku ku xam ne nit ki doon wax ku xam-xame la sànq sax maa ngi lay tooñ ci sama xel naan ay waaye ndaw sax moom de day nitu xam-xam moo tax daanaka daa far jël rek euh, patrimoine wu sëñ bi wala trace bépp rek mu yamale ko ci xam-xam wala waaye loolu sa normal parce que nit ku ne ca fa nga ne ak ca géej ga nga gëna a miin ca ngay gën a euh, tëmb li mu doon waxtaane nag mën na su tënk ci lu gàtt patrimoine buñ ko waxee mooy li ñu bàyyeel li ñu maam yi bàyyeel lan ñu bàyyeel nag dañ koy tënk ci ñaari mbir wax na ko léegi ci kàddoom mooy luñ mën a làmb daj ak loo xam ne cim xel rek lay des patrimoine euh, matériel wala mu nekk immatériel lu tax nag patrimoine matériel wala immatériel am solo ndax est-ce que euh, ndono loolu nga xam ne luñ mën a teg loxo ak liñ mënta teg loxo am nañ relation ñoom seen biir wala déet loolu tam luñ mat a wax la ci man sama jàpp damaa def ne patrimoine matériel ak patrimoine immatériel dañoo am relation boo xam ne benn du ci dem bàyyi morom ji ndax souvent patrimoine matériel ndono liñ bàyyi te mañ ko làmbu daj euh, ci la ñuy xamee valeuru patrimoine immatériel quelque part ndax ci loolu la ñuy gis ne li tax ñoom ñu mën a réaliser li ñuy réaliser loolu moo lañ koy firndeel jox nga misaal léegi ci mbokki yu baax yooyu suñu maam yooyu ñoom sëñ Masamba Kanni ñoom ma yem ci rek ci patri li tax ñu xam ne kii kat ku am solo la mooy lu yées ñeent fukki atam masalan maanaam sañc ci neb dëkk nga xam ne tey bu doon ci jamono sama at yi ma am man rek maanaam bi mu koy am moom fekk na moom mu sañ ab dëkk te loolu ci sama kalaas gi tey xel sax du ko xalaat ti jamono gënoon a naqari moyens yi amuñu woon kon jàngat gi li tax muy am solo mooy day tax nga xam ñooñu Euh, tolluwaay bi ñu toll woon moo tax boo jàngatee seen euh, ndono liñ fi bàyyi ca nga koy làmbu daj il faut nag nga xam ñoom lu tax ñu mënoon loolu li tax ñoo mënoon nag moo lay pousse ci nga jàng seen patrimoine immatériel te mooy seen ndono li nga xam ne doo ko làmbu daj ko loolu nag ci dëgg-dëgg mooy li ci ëpp solo ndax loolu mooy moteuru histoire histoire nit ñi dañuy def ay jëf action yi ñuy def waaye liñ ci conscience bi muy àndal moo ëpp doole. te loolu mooy wax waxyu bi nga xam ne moom du du du taarix waaye mooy waxyu bi ci boppam loolu moo ëpp moo ëpp doole sax ndax li tax mooy loolu mooy loolu mooy li fiy des maanaam mooy loo xam ne ku ko reproduire rek maanaam pas-pas bi sëñ Massamba ni amoon masalan fii ne ku ko ku amaat ku yàlla joxaatoon nga amaat pas-pas boobu rek boo muytul da nga defaat lu jege lim def pas-pas boobu nag mooy patrimoine yi yi nga xam ne immatériel la waaye dañ koo war a jàng loolu nag njariñ bi mu am ndax ñi ngi waxtaan waaye liñ ciy jublu ci waxtaan bi mooy buñ ko jàngee dañ cee war a am ñaari mbir rek lañ ci war a jël benn dañ ci xool ñoom fañ jaaroon ba réussir li ñu réussir ñu topp seen i tànk wala bu fekkee ne da cee am fuñ échec maanaam ñu moytu ko ñaari anam yooyu jàpp naa ne bokk na ci liñ war a tax ñuy jàngat euh, patrimoine mag bi léegi nag jàpp naa ne li nga wax léegi mooy buñ tuddee euh, dawru maanaam rôle boo xam ne ni euh, shabab yi maanaam ndaw ji dañ koo war a wut loolu dafa war ci ñëpp jàpp naa ne nag ni ko wolof di wax bu kenn ku ne dee bay ci wenn làcc rek bu yàggee buñ dooñee nit ñi waar wi dem bu waar wi demee léegi tey tool bi dem loolu mooy pousse kon sa famille yi nga xam ne dañoo gongi koo ci ci mag ñu baax ñooñu dañoo war ci ñoom obli ñuy jàngat seeni patrimoine di ko di ko di ko di ko di ko di ko xoolaat di ci jële ay leçons yoo xam ne ci la mën a euh, tax ñu mën a liggéey tey ci misaal si Massamba Kanni mi ñu doon wax boo ko doon xool tey man ngaa jàngat ci moom ñaari mbir damay wax ne boo xooloon tey lan mooy patrimoine euh, matériel am maanaam lan la fi bàyyi lu ñu mën a laal luñ mën a teg loxo bi max naa da nga ne sanc na daarul xadim ci circonstance yi mu koo sancee loolu luñ mën a teg loxo la ba léegi ndax suuf sàng bind na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay maanaam bibliothèque am maanaam bibliographie am mi ngi fi ba léegi nga mën a xam ne bind na ci li ñuy wax jaayante diggante nit ki ak boroomam ak sëriñam bind na ci tawxiid wéetal yàlla ñu man koo xam loolu ba rek ay patrimoine la yoo xam ne dañ koy mën a teg di ci laal di ci laal loxo defar na ay mag yoo xam ne nii moom mbooloo mu bari la ñoo xam ne daf leen a jël tarbiyee leen ba ñu baax ñu teg loolu la euh, topp mboor moomu tey moo ñu indi ci kër gi ci ñenn ñi nga xam ne balay kon loolu da nga ne ci ay patrimoine am loo xam ne nii da ko fee bàyyi ñu mën cee teg loxo léegi nag euh, loolu itam da lay pousse ci nga gis dimension nit ki maanaam moom si Massamba Kanni mi ma a réaliser li mu réaliser ci jamono jooju mooy kan ba damay wax ne loolu nag ku mel ne si Massamba Kanni euh, patrimoine maanaam euh, matériel am li riche riche ci man patrimoine immatériel am moo ko gën a riche fuuf ndax at yi bëriwutoon waaye dafa am yu yu raar yoo xam ne léegi-léegi fii duñ ko faral di bàyyi xel waaye lu am solo maanaam ñaw ñaw si ma Massamba Kanni intelligence am rek dafa doyoon waa am na euh, defe naa ci mbokk yi ñëpp xam nañ ko ñuy wax ne bi mu nekkee ci ci kër ko euh, sëñ bi benn bis ci ci daa euh, ci daara tarbiya yi ñenn ci ay mbokkam ñu ko bëggal lu baax yéene ko ko sax dañoo bind benn bataaxal jëme ko ci ku baax ki nee nañ bi ku baax ki jotee bataaxal bi wóolu sëñ Masamba Kanni mu ñëw moo xamal ko ne ko kat sàmba bataaxal bi ci sa mbokk yi la jóge to moom mi ngi ci euh, daara tarbiya yi comme ni ngeen ko xame woon ci fan yi bu soobee fan yi xam-xam lañ leen xam woon te booba tarbiya ak yu demoon taxutoon mu xew nag kon suñ gisee ndaw lu toll noonu tax booba da xam ne sëñ Masamba Kanni at yi bëriwut léegi moom mu jàngale mi jàng rek dem takkoog sëñ bi nekk ci daara tarbiya yi xëy na ci jooju jamono xamuñ ko sa normal léeg-léegi mu am ñu am inquiétude jàpp ne dafa jaar wane yoon wu ñu baaxut xam bii wax nañ ne bi sëñ Masamba Kanni bi ko ku baax wa wan wanee lettre bi daf ko ñaan ne ko daal su ma sañoon bala ma cee wax dara ma am lu ma jiital ku baax ki ne ko bismillah mu xamal ko ne ko bataaxal bii nga yor lépp lu ci nekk lu du tàqale ma ak rek nangu naa waaye su ci tàqale ma ak nekkee moom loolu du mën a nekk mu ma ne ku baax ki dafa sax am nu nu nu nu mu def xam na ko ne ko Masamba ndax baadu dangaa xam li ne ci lettre bi foofu intelligence bi ma wax mooy nit ku ñaw dëgg dëgg dëgg googu foofu foofu looloo ma ci ñor dafa mën na da xam li ci lettre bi mu ne ko mbàkke xaw ma ko de waaye damaa xam ne sama mbokk yi dañoo ma bëggal lu baax lool yow nga bëggal ma lu baax waaye ñoom dañ maa bëggal lu baax rek waaye mënaluñ ma ko yow nag da maa bëggal lu baax ba noppi manal ma ko donc foofu ci ñaw doomu aadama dëgg dëgg mënut weesu loolu mooy euh, li tubaab yi di wax savoir faire la part des choses mbir mu ne nga xam la la ciy jariñ dëgg-dëgg ngay wuti ko foofu sëñ ma Kanni yi dafay jëfee loo xam ne li intelligence la mooy xoolal euh, li ndax xam na dafa dafa dafa peese te loolu booba ndaw na de booba at yi at yi du bari booba at yi du bari ndax sëñ Massamba Kanni guddit fan sax d'ailleurs kon ba muy nekk ci daara tarbiya yi da nga xam ne at yi bariwul waaye malgré li lii muy tudd lii at yi di eh, tuuti tuuti amoon nag settantal ba xam mee ne ndeysaan ndeke nit dana la bëgg sax ba far yàqal la intelligence du nit nag mooy jamono bu ne nay xool li ëpp njariñ maanaam mu ne ko ci yéex jël loolu ci muus ak ñaw doomu aadama la koo xam ne luñ mën a jàngate ci Sëriñ Masamba Kanni maanaam kon kum jur war ngaa nekk njàccaar loolu ci lum lum lum lum njaboote sax laay wax war ngaa nekk njàccaar ndax loolu ci njàccaar dëgg-dëgg la bokk mooy xàmmee lii jariñ doomu aadama ci waxtu wu nekk. am na ba tey luñ mën a jàngee Sëñ Masamba Kan mooy am ambition maanaam nit ki du jombale boppam dara am na bayitu Sëñ Masamba Kan yi woo xam ne en fait boo ko xoolee dëgg-dëgg dangay xam ñaari mbir sax nga ci jàmm jàngat ndax li tax may wax yi yeneen yi dama ko yàgg dégg lu bari maanaam moom dafa am ambition mais li ñu wax amut ambition dé euh, démesurée maanaam nit koo xam ne da ngay da ngay mébét rek di wéy waaye li ngay mébét dara du ci sotti ndax da ngaa mébét lu loo xam ne nii koo ci mesure réaliser ko loolu day tardel doomu aadama boo ko seetloo ñi nga xam ne foo leen fekk rek maanaam boo ko boo miinee fu ma la Dakar da ngay si ñoom foo leen fekk ñu ngi cartable di di di wax ay projets milliards rek di wéy te ñoom moment bi ñu koy wax. maanaam projet euh, cinq cent mille bu bu wóor ñu mën koo liggéey teg ko sax téewuñ ko ñoom nekk fa di tudd yi milliards mën nañ cee nekk ba màggat duñu réalisé dara foo fekk ñu naan la buñ waxee yow nii nag da ngay jàpp ne suba ñu wàccee la milliard mu teg loolu mooy ambition démesurée waaye ambition moom dafa baax ci nit mooy bëgg dara di bëgg maanaam di am loo xam ne da koy xemmem di ko bëgg sëñ Massamba Kane dafa am béy du moom da ciy diyaaleeg boromam da wax boromam ne ko wa faddalan ala siba zatil qadim kulli bihi min xalqi asri yaa qadim foofu boromam lay jiyaale ne ko yaa ma nang ma def ma gën ci sama ñooñu jamono ku du seexul xadim rek maanaam ku du sëñ ci waaraal ci sama niti jamono moom féetale ma ko kaw bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan yàlla yàlla yàggal fi lool Seex Muhammadul Muntaxa te may ko wér ak boole jëm Sëñ Tuubaa gépp di tàmbali nag nuyoo bi ak cant bi ak ngërëm li ci turu Alaaji Jaañ mi nga xam ne tey jii mooy mag ci waa kër Maam Sakku Naate dend ak euh, mi nga xam ne tey jii moom la ñu fekk si euh, njabootu Mbuso bi di waa kër sëñ Masamba Kan nii ci njiital sëñ Seexuna mii ci diglu sëñ Fallu mi nga xam ne mooy xalifa bi sëñ Yaata nee na ci turu Alaaji Amar Jaañ ak ci turu sëñ Mbàkke Jaañ ak ci turu sëñ Njàmme ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Seexuna di la yóbbante ak cant itam ci Sëriñ Fallu ngir kat wax na ne lii ngeen def du rëy rëy la loo xam ne maanaam marqué na histoire ndax ku toog fii tey déglu sëriñ Mbàkke kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko ak ñi topp ci moom ci wàllu naka la ñuy def ba patrimoine bi nga xam ne moom la fi Seyxina Ahmadul Xadim bàyyi ñu mën koo jariñoo te loolu ji ci war a jiitu doon ndaw ñi jàpp naa ne waxtaan wu am solo la waxtaan woo xam ne xamante jii télévision yi yu national yi ak international yëpp war nañ ko mën a diviser ngir ndaw ñi mën koo jariñoo te kat jariñoo gi bu nu jëlee rek liggéeyub sëñ Mbàkke maanaam sëñ Masamba Kan ni dafay doy sëkk ci ndaw ñi man koo roy jaar ci yoon nga xam ne yu ci la jaar ci digganteem ak Seexna Ahmadul Xadim yàlla yàlla yokkal nu ay leeram kon sëriñ bi sëriñ yaata mii ak ay bokkam ak si ñaamar bi nga xam ne muy seen mag wax nañ ma ne nañ leen wax ne ñi ngi leen di sant bu baax cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul bu yam waaye di sant itam soxna maam Bousso mële ak mboolem jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk nii di sant itam mboolem waa koñ bi nga xam ne woo woote nañ ci wuy si leen waaye cant gi leen sant nag yéen dafa am sabab sabab bi moo di ku dégg gi gii nga xam ne moo di sëriñ Seexu naa jàng ki ci diggante ab taalibi akub sëriñam ñëpp ko bëgg am ko bëgg am loolu ab sag la sag bu rëy la tey di ko am bëriwut kon yéen cofeel gu am rek wala cant gu ngeen bëgg sant rek ñoom ñii de di di taalibe yi ñi leen di sant cant ko ko raw fuuf buñ ko mënoon ngir sa ah, wax na ma ne taalibe boo xam ne soo amee tudd yaa fay jiitu bu dencee soxna danga ko xam xam nga ay doomam xam ay njabootam bu faatulee yaa fay jiitu ba noppi yëkkati sa def ca loolu taalib yi di ko yittewoo jamono yi te dafa tumuranke aha aha kon seen maam yu baax yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak seen maam yi ñoom ñu toppoon leen daal di seen ndigal di ko jëfe di bàyyi seeni tere yàlla dogal it ñoom gi doon na ñoo xam ne dañ daan def ne kilifa yi fenn fu ci nekk dañu daan jël doom def fa loolu moo tax ngeen gis waa njaañeen ñi am ci ñoo xam ne ñi dañoo fare fële ci kër si ma saxir may xam yoo xam ne dañoo pare Daaru Xuddoos ci kër sëñ Mouhamadou Moustapha waaye xam nañ ne ginnaaw tool bi tool bi sëñ Tuubaa kon ku dal ci tool bi di bay rek mel na ni da ngay liggéeyal sëriñ bi. loolu ay kàddu yoo xam ne ñun waa koñ bi di màggi koñ bi nekk ci jàkka ji ñoo ko yëkkati mu di cant jëmi ko ci alaaji am ci ci alaaji Amar ak alaaji Yaasa mii ak seeni mbokk ak yéen ñii nga xam ne yéen a ñëwoon andil nu liggéey bu rafet bii waxtaan wu rëy wii nga xam ne tey jii wax naa ne àdduna sépp maanaam mën nañ ko jëriñoo ñu ngi leen di sant baax te leen gërëm di leen jaajëfal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dafa baax lool mooy suñu yélimaani jàkk ji. waaw mooy suñu yélimaani jàkk dafa baax lool baax dëgg saa yu ñu jullee daf nuy wax ci ñi nga xam ne dégg nañu eh, ci xas eh, alxuraan wax leen ñi nga xam ne dégguñu ay wolof la nuy leeral toujours buñ xëyee buñ jullee suba fa la nuy téye ba dina yooyu jàngal rek nu nuy noo xam ne ni ñuy def ba am lu baax. kon nag moom ngeen ñaanal ko ab Ablaye. Euh, la tudd sëñ Ablaye Ndiaye ku baax a ngi nii ku gore ah sëñ bi nag man yéen rek nan yaakaar ah ba ye gane àddina fekk samay maam moo tax sama xol sedd na guy ak samay baay ma ànd ak yéen yéen tam ngeen koy dox ni nga xam ne yaakaar naa sunu waajur yi lañ ko doon dox dox yéen yéen a ci gën a sonn kon nag moom tamit yàlla na leen fi yàlla yàggal nu yàgg leen fee fekk nu yàgg ànd di lëggeel sëñ Massamba Kanni jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen bokk fi teew ñii leen nuyu ñëpp kenn ku nekk ci aw ak santam nuyoo bi ñu yëkkati nag ñoo ko tudd suñu làmmiñ waaye mi ngi bàyyi ko ci suñ kilifa Cheikh Mamadou Fadal Bousso mi nga xam ne moom la yàlla tànn teg ko ci boppu njabootu Sëriñ Massamba Kanni mu yilif leen ca mate ko ñu yenn si borom tawa subhaana yàgg ko fi lool ci wérul ko bi jeex da bu yu nuyu itam mbokk suñ bokkee ñi nga xam ne ñoo sant Jaañ ci fekk si leen bari ñoo sori nag ci kàddu yi nga xam ne sëñ mi jox ñu ndigal ñu yottale ko ñu sant si Muntaxa bu baax a baax ci taxawaayam ci lislaam ci taxawaayam ci dëkk bi ci taxawaayam ci bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa ndax doy na sëkk lim fi yëkkati mooy université mag bi nga xam ne bu doonte ne am na lu des waaye tàmm lañ faa jànge loolu rek boo ko yéenoon képp ci mébét ko ca defu ko daf doy sëkk ndam ndam loolu lii nag yàlla ko yàlla yeggale ci loxoom ñu ànd ak moom bi jaay Xaadimu Mustafaa nañ ko sant ñu sant bu baax a baax di sant tam sëriñ Fallu Buso di suñu baay nekk ci boppu njabootu sëriñ Mbàkke ni ak sëriñ Masamba Kanni ndax ñoom ñaar ñu bokk ndey baay kon ku yilif kër gi rek yaa kër gi ñu bu baax a baax ci taxawaayam ak yëg-yëgam e, ci kër gi njabootam teew nañ fi nag waaye man du ma leen sant ndax li tax duma sant baa kër si Mbàkke Kanni bis bi seen bis la ñoom bi fi ñëwee ñoo war a jël micro bi sant ñu waaye ñun war leen sant ndax euh, di ni mu demee moo tax dama ci sori euh, ginnaaw bu lowee na sëñ bi nee na euh, mi ngi sant ñëpp waaye bala ñoo sori ci sant gi dañ ci jiital sëriñ Mbàkke Jóob mi nga xam ne moom lañ tànnoon njaboot si mu sàmmkat gi nga xam ne ñu département naan tànnoon ko mu doon waxtaan waxtaan wi doon leeral mbir mi sëñ bi lim ci mën a leeral leeral nañ nag xam-xam bi rafet na lool yàlla na ko ci yàlla jàppale te jàppale ñi koy dégg ak ñi ko déggut ba kenn ku nekk soobu ci ndax wax dëgg yàlla lim fi wax doon sëkk ab woote ndax boo wootee ci ko toll ne si ma sàmbakan woo ci borom xam-xam bu toll ne moom bu toll ne moom ci ay atam bëriwul mu wax fi lu toll ne mu fi wax doone sëkk euh, ab woote sant nañ ko baax a baax di sant tam su rakk yi nga xam ne moo doon def xalaat bi ci ay waxam ñu koy wax si Moxtaar bu moom si ramaan bu doonte ne ci ñoon la bokk leer na fi lu mat a leeral leer na fi xam-xam bi nga xam ne moom la si Mbàkke Jóob doon wax waaye leer na fi tam mbirum si Masàmba Kan ni ci aw ak farloom leetar boobu yi mu doon leeral nag ngir wax xalaatu Sëriñ Masàmba Kan fi mu àggoon leetar boobu yi mi nga amoon gànnaar ñu bari xam nañ ko gànnaar fekk Sëriñ Masàmba Kan ni fekk Sëriñ Tuubaa moo ko woon mu nekkoon fa ci loolu wax waxam yu rëy jooju yi ma waxoon gaaw waxoon ko noppi nag duñ ci am na ci duñ ci soro duñ ci waxaat waaye dañuy wax ne rek lettre bi am na waaye ganaar la amee woon ah, lu kon léegi loolu ñu ngi koy bu baax moo tam ci leer gi nga xam ne leeral na ko ci mbirum si Masamba Kan yi ah, si Masamba Kan ñuy waxtaane nag ak ni mu doon liggéey Sëriñ Tuubaa lépp ñoom wax nañ ko waaye li ci gën a gàtt daara xatim googu yi nga xam ne bokkoon ci ndigalu Sëriñ Tuubaa tax mu sancoon ko mook ndindi ak aliya ak daaru karim ñoo maase ñoo bokk benn bis bu Sëriñ Tuubaa joxe ndigal ñu sanc ko ak tundóo di ndindi ak tundóo ak daaru karim ak daaru xatim ñoo maase ñoo bokk benn bis bu Sëriñ Tuubaa jox woon ndigal ñu sanc ko ndigal loolu te ma ko joxee mi ngi sosoo woon ci bëgg-bëggu Sëriñ Masamba Kanni ndax dafa bëgg a naweti dëkk bu ñuy wax naawel ndax ku ne xam ne ne foofu la gane àdduna ndax si mu soobee ginnaaw bu ger ba jeexee ba mu ñëw naawel buurub Saalum bi da ko daggal foofa àll wu yaatoo yaatu muy naawel googu mu nekk fa ak ay bambara foofee fa la siñ Masamba Kane gën a àdduna ak rakam bari siñ Mbàkke ne sax fa la gën a àdduna ak rakam bi mu yenoo fam fabe ji woowee nag muy dugub mu bëggoon a faraasu ji ci la doon lémmuloo sëriñ bi jiw wa ñëw sibi di ko lémmuloo ku ñuy wax bàyyi mu du Fatma Jóob yàlla na ko yàlla loolu ay leer bokkoon ci mag ñi xam ne ñoo àndoon si Masamba Kane doon liggéey sëriñ Tuubaa moo yenoon jiw wa bi mu sëriñ bi sëñ bi dafa laaj na ko ma sàmba mu ne ko mu ne ko mbàkke mu ne ko foo bëgg liggéeyee ak tere yi mu ne ko naaweel mu ne ko nga jublu ci lan mu ne ko xanaa bëgg faa yar dong bëgg faa jàngal dong yi ak lislaam ak taalibe ak yar ak yar mu ne ko de mal woo moo ma sàmba ko de mawlu moom Moodu Moustapha ak Mamadou Fadal ak ma sàmba Mbàkke ñu ma digal leen ba ne waaye ñoom ñoo ñii ñoo toog ci leen sëriñ bi wax ne leen dama bëgg ngeen du xeeli ma sama dëkk ba ci Touba bu ngeen demee ngeen daan dëkk ba lu toll ci juróomi sibbili ba ci juróom-ñaar loolu boo ko déggee ay kilomètre la bu ngeen fa tax ngeen di mu fa liggéeyalee bu ngeen fa liggéey ba ba suma liggéey boobee tàmbali di jumaa ji lépp lu ngeen liggéey ngeen indi ko jumaa joojee bu yàggee te bu yàggee te ngeen faa mën a bàyyi ko di julli si jumaa ca mbañ yàq seen liggéey daana ko ma sàmba mu ne ko mbàkke dama bëgg nga xam ne junni boo xam ne bàyyee koo na ma ca àll tànk bu bàyyi ko Tuubaa moom gënal loolu de Sëriñ Tuubaa ma ko waxoon si ma sàmba kan ak si Mudu Mustafaa ak si Fallu ak ma sàmba Mbàkke loolu moo tax seen dëkk yi eh, eh, farañ dëggloo ne ñu digaloo sant na leen cant goo xam ne gii ci sim làmb ci simil samkat la ko jëlee sant leen ko ndax moom du fi nekkal seen taxawaay bu rafet taxawaay boobu ngeen taxoo nag ci mais ñaan ci kàttu yàlla subhanahu wa taala euh, ci rajo Seex Xaadim mi nga xam ne euh, lépp jàpp na ko ci nit ñi rek tax mu doon ko wuti euh, yàlla na yàlla yokk seen wërsëg yu guddal seen fan ca barkeel ko Euh, ci jubatam njaboot gi te lañ ci yoonu sarama saxima bi nga xam ne ci ngeen jaar ci ndigal Sëriñ Tuubaa seen seen darta bu gën Sëriñ Tuubaa di leen sant tam nag ngeen góorgóor bu baax ci njaboot gi nga xam ne bàyyi ngeen ko ndax lii ñu fi waxtaane ci xam-xam seen tur tànk yi nga xam ne ku ci am tur tànk na nga xam ne daa war a jàngi ndax liñ bëgg ci yoon bi jàng moo koy maye am xam-xam bu wér ca xam-xam boobu nag mbàkki tax koo jóg bu su tax koo jóg moo jaamu yàlla ñoo yem jaamu yàlla ba ko yàlla sàkkee teg ci ay sart yi tax yi nit ki war ba mu ba mu ak jaamu yàlla néewul ko sant mbàkki néewul ko sant bu su ko sant fàll sant ndaw déedéet jaamu yàlla la wax nañ jaamu yàlla ñun ñëpp ci bal jaa suñu borom nag mënu su koo jaamu ci xamoo ko mënus koo liggéeyal itam ci lislaam ca jàngoo loolu lépp nag aw jàng moo ko maye kon na ngeen góorgóorlu ci njaboot bu ndaw gi xam ne moom ko yor bu la leen rëccut ci mag ñaar ci seen bopp ngeen fexe fexe ba dabaadoo ko seen njaboot loolu bokk ci li xam ne bëgg-bëggu sëñ la eh, la ci def tam si ma sama moom dafa amoon ngërëm sëñ Tuubaa liggéey ko ba am ngërëm mbaa bis bii ko wooteel da ko defal yokkut ci moom dara waaye ñu ci moom dara ndax la muy am am na ko noppi waaye ñun ñii lay jëriñ ñun ñii lay jëriñ ndax fekkente ne eh, ku tollee xaadim rasul dalaa tànnal kilifa gu mat kilifa te ñëpp xemeem ko ci kilifteef mu boole la moom nga ànd ak moom ba gistoo ko say bàyyi ak say maam ànd ak ko gisoo ko nga continuer ànd ak moom di ko boo xam ne danga koy jagleel bi si ñaan jàng alxuraan jàng xasida jël def si salaatu alayhi bi ñaan ko ci ñaan googee ci rek lay dellu si loolu moo sabab jataay bi tey eh, la ci tegu tam jumaa jee xam ne sos nañ ko ca Daaru Xadim li ci def ren gis nañ ko réy na lool eh, ñooy ñaan yàlla tam at mu jot téye mu yegg ndax jumaa mën nga koo tàmbali waaye mën na ren lee ak wala déwén la déwén wala ndax boo takkoon xaalis bépp teg tam mënut a am ci at yooyu ndax li li li ni ko yàlla ci kaw suuf moo toll noonu moo mën moo doon loo xam ne mënut gaaw yàlla yàlla ci boppam ginnaaw bu nu wàcc ci kaw suuf ci jàkka lay wàcc wala ci jumaa ak néegam néeg bu yàlla wàcc nag loo ko man man man rek du tax mu gaaw kon nag ñu ngi ñaan daal at mu jot lépp loo xam ne man ngeen defal nga ci yàlla ko yàlla yokk di jaay xadim Mustafa yàlla mën na ko ci yàlla na ko yàlla def cam si sama kan itam ngeen góor góor baax a baax xam ne bii sub si sama kan ni sant ko de dañoo war ndax dañoo defal liñ wax loo xam ne ko woon defal xam ne fekkuñ ko woon buñ demee ba yàlla dogal nag mu ànd ko suñu bàyyi ànd ko suñu maam ba yàlla dogal ñun ñi ñu def fi war ñoo lëkkatoo ba fexe fexe fexe ba di ko fàttaliku di ko sant ci jëf ji muy jëfal sant képp ak delloo ko la ñuy def waaye mënu su koo fay euh, sëñ Paul daal sant na góor ñi sant na jigéen ñi sant na waa Njaay gépp sant nag boo ko yëkkatee teg ko ci loxool ka nga xam ne moo la tànn mu nekk jëwrinam ca Italie mooy yaata jaañ ñii dana ko mën a jot li mbooleem ñi bokkal jaañ jaayin gépp danga ñëpp. ah li gën a gàttaan mooy xam naa ne eh, lii yéene si Elaaji si boppam moo waxoon moo waxoon ne naa ko waxal samam xel at na ko sama lamiñ mën a ko tudd waaye nag bëgg-bëgg bi moom mi ngi fi yàlla ko yàlla sottal ñu ngi ñaan nag ñun ñëpp ñu yàgg teewi bi si at yu bare bare bare bare ci kanam ca benn bañ ci benn at bañ ñuy ñëw ba ba ànd ci ak tële lépp ànd ko man yàlla man na ko ku ñaan yàlla da ngay <coughs> nga bëgg ndax ku di ko suñu moxtaar wax rek li eh, xam xam da day yob suñu borom day laaj nag nga ñaan ko loo xam ne dana ko def ndax suñu borom tëliwul dara waaye am na loo xam ne du ko def waaye nag fan wu gudd mën na ko may ndax mu ngi may ay nit wërsëg mën na ko maye ndax mu ngi may ay nit wér-gu-yaram mi maye mën na ko may ay nit